surprise moom. Mhm. parce que xalaatee wuñ ko woon ci euh, gouvernement solution. xalaatee wuñ ko woon ci euh, coalition bi gagné woote woon solution parce que il avait décrié partout que ni dans endettement Macky Sall bi dafa extraordinaire ba pare surtout le système eurobond ak système bi nga xam ne ni ñoom moom lañ doon endetté woo. Mhm. donc pour man euh, ça reste il faut que ñoom ñu ñëw ñu génn ñu justifier pourquoi mhm. ñu def. Euh, dette boobu hier j'ai j'ai écouté Souleymane euh, l'économiste euh, qui était à la 7TV kii sant Diagne. Souleymane Astou Diagne non Cheikh Bamba Diagne ah, Cheikh Bamba Diagne mhm. et que cette question moi j'aimerais bien voir comme gis nga professeur da lay defal rappel historique FMI Banque mondiale li ñu teg pression yi ñu teg man j'étais d'accord ak ñoom ci discours boobu. parce que pour man FMI ak Banque mondiale bokk nañu ci ñi nga xam ni ñoo indil Sénégal problème yi mu am. Mhm. s'il pas FMI ak Banque mondiale kon Abdou Diouf tey du yegg si fi duñ ko sénégalais yi mujjee màgg xale yi mujjee màgg duñu wax. parce que problème ajustement structurel bi moo indi lépp. Mhm. mais ku mel ni Boubacar Camara en tant qu'économiste j'aimerais l'entendre sur cette question. Mhm. parce que pour man les vrais débats économiques fii la nekk le gouvernement le ministre bi Abdourahmane saar bi ñu koy indi il avait décrié Macky Sall sur toutes les lignes ne dettes yi baaxul système d' endettement bi. eurobond bi 80 pour cent ni ñu defee choix bi léegi ñu dem jëlali ñu Abdourahmane saar nañu c' est le meilleur donc d' accord nañu c' est le meilleur c' est un économiste. Mm-hmm. mais beneen bi si topp aussi tamit la gestion dette Macky Sall bi ñu décrié woon man daf may xaw a jaaxal parce que Diba c' est c' est Moustapha Ba Diba est égal Moustapha Ba parce que pour man. le directeur de la planification te Moustapha Ba fii directeur ba yéeg ba nekk ministre de l' et des finances te dans les structurations du ministère de la finance dara changé wu fa lu dul directeur cabinet bi kon cela veut dire que ni un débat économique war nañu poser waat ci débat bi balaa parce que lancer benn dette boo xam ne bu ñëwee day fayaat ay dette du demaat ci investissement loolu lan lay signifier raison pour la laquelle nous soxla nañu communiqué bi ma gis ministère de l'économie def ko non doy il faut que ñu génn mm-hmm. parce que li ça permettre aussi tamit les autres leaders qui avaient des programmes économiques ñu génn mm-hmm. teg ko sur la table ñu waxtaan ci mm-hmm. parce que pour ma <coughs> économie locale ak épargne locale bi am na lu ñu war a mën a servir parce que tey am na proposition yoo xam ne da koy gis fii ci économie locale bi ak épargne locale mais banque d' investissement man déggoon naa fi Amadou Ba ci bi muy def politique générale mën nañ ko fi def parce que vous imaginez diaspora bi on nous dit que deux mille xaw ma ñaata milliards. mooy dugg mille milliards yuy dugg ci biir jas euh, recette buy dugg fii ci diaspora ban banque moo koy capté. BND dañ ko fi créé woon. Mm-hmm. dañ ne banque nationale développement lan lay si léegi banque yi bu ñu demee ba. ñi nga xam ne ni ñoom ñooy étranger yi nga xam ne économie presque ñoom ñu seen loxo la nekk presque ñooy actionnaire majoritaire banque yi. Mm-hmm. léegi nag qu'est-ce qui se passe il faut que ñu ñëw ñu expliquer ñu. Mm-hmm. rupture yi ñu doon xaar ñun foofu lañ ko doon xaare mm-hmm. mais rupture première bi ñu njëkkoon bëgg a gis mooy nan la ñuy mën a def ba nga xam ne ni Sénégal du jéggaani ay bor parce que gis nañ Ghana réussir ko. parce que gis nañu benn moment ñu ne ñoom. pour financer leur éducation et pour leen financer seeni santé yooyu soxlawuñu euh, institution Bretton Woods yi mais pourquoi pas Sénégal te man li ma jaaxal professeur. Mhm. mais boo demee FMI wala nga dem Banque mondiale fonctionnaire yi fa nekk yëpp ay sénégalais la. bare na ci. que ressources humaines bi nekk si àdduna bi yëpp presque ñun lañu. donc pour man question bi man war na mën a lancer waat benn nouveau débat ñu ubbiwaat débat. Mhm. boo xam ne débat économique mais Boubacar Camara man personnellement. j'aimerais l'entendre. que c'est Mm-hmm. donc bëgg naa ko déggaat mu génn en tant que économiste beneen bi ci topp le ministre Moustapha Ba. Mm-hmm. et Amadou Ba moi j'aurais souhaité ñu defar livre blanc. Mm-hmm. expliquer les Sénégalais yi fan la ñu bàyyi woon finance parce que Mamadou Lamine Loum l'avait réussi bi muy quitté. coow am en tant que économiste premier ministre dafa ñëw teg livre blanc ne leen milliards projets yi ak projets yi lañ fi bàyyi. pourquoi pas Amadou Ba premier ministre sortant. Mm et Moustapha Ba bi nga xam ne depuis lors moo fi nekk war nañu mën a génnee benn livre blanc expliquer les Sénégalais mhm. ba pare les députés aussi à l'Assemblée nationale mhm. war nañu mën a bind invité le ministre de l'économie mhm. mu ñëw à l'Assemblée nationale parce que bu ñu nee problème mu dette yi moo indil problème Sénégal det det det det bu ñu yegsee phase bi dañu war a ibbi débat ñu def ko mais man personnellement moom Boubacar Camara man maa koy lancé fi un appel solennel pour mu génn parce que ni mu expliqué woon système eurobond te boo xam ni ni ku ko xam xam ko ci xam ku ko xam xam ko aussi tam ci bor parce que jàpp naa ni man sax programme moom bokk na sur les meilleurs programmes yi nga xam ni moom lañ proposé woon au Sénégalais mais eurobond man moom moo ko leeral dugal ci sama bopp mais hier j'ai vu les économistes commencer di wax ku si nekk di waxee côté di wax ak mais état du Sénégal pour l'instant li ñu jox comme information doyul très bien euh, j'aimerais bien souhaiter à ce que ñu génn wax ñu parce que ñoom ñoo waxoon mhm. ni dette yi baaxul endetté baaxul ñooñu waxoon eurobond baaxul mhm. ñooñu waxoon ni choix économique yi Macky Sall defoon baaxul te benn moment gis nañu les réalisations foofu nag laa soxlaa Amadou Ba parce que man du ma porte parole Benno Bokk Yaakaar du ma porte parole APR. Mhm. mais ñoom ñoo dirigé woon dëkk bi pendant douze ans. Mhm. ministère de l' économie et des finances bii fi toog. tey jii nii bi fa mu ministère ba mu bàyyi ña fa nekkoon les mêmes équipes la dara changé wul Moustapha Ba depuis avant mu Abdoulaye Diop ba léegi mu ngi foofu. Mhm. pour man boo ñëwee nga reconduire débat rek pour man amuloo droit critiquer ci Macky pour man actuellement débat la continuité. parce que boo nee Moustapha Ba rek ne Diba parce que planification yi ñu def yëpp det yi ñu jël yëpp moom moo ko defandoo ensemble ñoom mhm. parce que moom foofu la nekkoon très pour man c'est c'est mais li ma leen di souhaiter mooy heure bi euh, nañu génne livre blanc ñu expliquer sénégalais mais Boubacar Camara nag laa gën a soxla ci débat bi. <laughs> c'est important xëy na dina génn nag euh, moom itam wax ci li nga xamante ne moom moo jëm ci eurobond bi euh, par rapport ak dette boobu nga xamante ne ne Salif Sénégal daal dina ko amaat ñu gis ne ne. le plus souvent euh, li nga xamante ne moo jëm ci mode de financement bi euh, des fois dafay poser euh, problème ba tax na à chaque fois dañuy am ay jafe-jafe fa ñuy dëggal li nga xamante ne moom moo di koppar googu aussi. waaw parce que en premier damay rafetlu l' intervention de Abdoulaye Mbow et de Abou jàlloo la lueur nous suit au passage maa ngi koy nuyu donc li nga xam ne moo ëpp solo. ci leb yi mooy leb yoo xam ne yu am njariñ la yoo xam ni véritablement day génne koom-koom goo xam ne day impacté ci dundinu doomu aadama yi gën a ñoŋ waaye it dina permettre ñu la yeneen det xam nga euh, bu ñuy wax bor yu baree bari Mamadou Moustapha Ba listé ko wax ci boru abdu juuf wax ci boru président Abdoulaye Wade nguuru président Abdoulaye Wade dama dama su may xalaat su may doon càmbar dama naan ñi mën naa ni ñi ëpp xam-xam ci wàllu koom-koom ci jamono boobu dañ fësal seen bopp ndax bañ na ko ba bi jógee ci nguur institution yu mag yi dañ leen jël booy xool en 2006 euh, par rapport a l'association internationale de développement IDA dañu baaloon Sénégal bor boo xamante ni daf ko waroon yor te boobu euh, daf ko yore woon te boobu directeur des opérations c'était Madani Tall si on on xeet yu mel noonu cette crème est toujours la te li ñu doon def ba tax ñuy am ces épongements euh, ces épongements là fi ñu koy jëlee ak l'argumentaire bi ñuy am euh, maanaam layal gi ñuy am ngir tëral euh, opération yooyu waxtaan ci ba nga xam ne dinañ mën a jëm ci wàññi wa jéggal ñu bor bi wala ñu wàññil ñu ko ñooñu noonu ñoo ngi fi ba tey il ne faut pas que le nouveau régime s'oriente à dire que ñun la rek dañu koy def déedéet il faut faire appel comme ni ko soo ko waxee woon ci bi ñuy clôturer eh, seen meeting bi nga xam ne moom lañ doon def mbooro tàllal na dinañ wër fépp fu doomu Sénégal nekk bu am xam-xam ngir liggéey réew mi ñu ànd ak ñoom te bañ a def partage du gâteau c'est lui qui l'avait donc mm-hmm. il est parce que actuellement le pays souffre mm-hmm. c'est normal que ñu dem lebi ji parce que kii konk surtout les entrepreneurs yi nga xam ne ñoo doon liggéey ak nguur gi la dette intérieure je par parle même pas de la dette extérieure la dette intérieure mu ñuy naan dette ménagère bi nga xamante ni si moo concerne les entreprises ki travaillent avec l'État du Sénégal dañu nekk ci ay jafe-jafe fi mu toll nii parce que trésorerie bu Sénégal dafa sooxe ci jamono bi beaucoup de gens fayuñu leen le changement du régime ñu ngi def ay soppi di teg ñi jële fi ñi alors loolu noonu dafa ralentir dëkk bi brèche bi nga xamante ni si tamit duñu ko ubbi par rapport ak opération goqi bi nga xamante ni moom la le premier ministre wax lors d'une intervention bari na yoo xamante ni si ci ay pratique dëkk bi dafa taxaw